maanaam julli gi ko fi mujj a fekk fajar gi da ko julli si foofu dinaa fi wax leneen lu am solo mooy Sëñ Tuubaa xut xutba wom sasin bi nga xam ne moom la seex Cheikh Mouhamadou Lamine Diop Dagana def mooy xutba bu wom sasin mooy xutba bi mujj a def maanaam ci gaaw bi la ko def dibéer ca fajar ga julli si wut fukki juróom benn ci weeru mu tam xarit bis boobu tollu ab gaawu sëñ mat la mi nee na ci la ko def mooy xud mooy waxtaan wi mujj waxtaan ak eh, jaam yi wax leen booba xutba bu gudd la waaye bu am solo la bu mat bu mat di bàyyi xel ba mu génnee xam nga dafa wax ne ginnaaw bu mu jullee takkusaan la sëñ mat lamin na dafa laaj ba mu tak teg sama ba noppi dafa laaj moom sëñ Tuubaa ne tey la ñaata fan ci weer wi ci weer wi ñu ne ko fukki fan ak juróom benn mu ne mu ne dénk naa leen ngeen dal te dalal seenu njaboot te bàyyi dox bi day toog yéeg gàmmo gay weesu bu fi kenn génn la waxoon sëñ Tuubaa radiyallaahu anhu daa ci na ni ngeen jaamu yalla mi leen dimbali def leen tawfiix ngeen man ko jaamu ndax na ñoo xam ne kat tënk na leen xëy na sababu seen i bàkkaar wala seenu kefer tax tax muy leen xéewalu ñu man ko jaamu kon ngeen xéewalu jaamu yalla nañ ko fonk dar ci tek ne war ngeen xamit ndigal yalla yi nga xam mo leen di mëna may aljana ndigal yooyu neen ko xam da ngooy ci su ngeen ko defee di ngeen texe aduna ak alakhirah texe goo xam ne texe du ci du ci topp mukk tere yàlla itam xàmmee leen ko te moytu ko ndax tere yooyu kat mooy lii taxa dugg sawara te ku ko moytuwut faw nga dugg nga dugg sawara daan leen wax ne kat maa ngi leen di dénk seen yitte jëpp ngeen def ko ci ñaari mbir mooy ngeen xam li yàlla digle te di ko def xam li yàlla moytu ngeen di ko moytu Dikau ko di ko di ko kami boleh def ne leen ñaar yooyu nag ci la xam-xam yi mbooleem ñi jiitu woon ak ñu mujj xam-xam seen xam-xam weesuut weesuut foofu loolu mooy xam mooy xam-xam yi ak alaxira daa ci teg ne na ngeen farlu ci julli juróom ak sarxe ak ñaan daal dellu fatu ba timis ci gaaw bi baax fukk ak juróom benn ci weeru tamxarit ca timis ji ba la na alquran suratul baqara nee mu jang ba ca muflihuna ja mu ne ko taxawal ne ko lolou de moy melaw ñi gëm yàlla deug dëgg ñoom dañuy mel ay ndab yo xamni dañ leena ubbi dañu ubbi kaw gi suuf gi ñu ñu sakku ko ba dara du sen yalla da cee def xewal te xewal yu ñu ci def du set du sen du du seeb du génnaat daal ne ko wéyal jang mu jang inna alladina kafaru sawaa'un alayhim ba ca walahum 'adhabun 'adheem mu ne ko ñu de moy yéefar moy seenu melaw melaw yéefar yi de ndab lañ yoo kaw gi dañ koo kaske dañ ko tëj dara mënta dugg ci ñoom lu yàlla taw taw ay xéewal du du agsi ci ñoom daal ne ko wéyal jàng mu jàng wa min annaasi man yaqulu amanna billahi ba ca wa maa yuxaadicuuna illa anfusahum wa maa yashcuruuna mu ne ko taxawal mu ne ko loolu mooy naafiq yi nga xam ne nag ñoom ñu ngi mel ne ay ndab yoo xam ne seen kaw ubbiku na xéewal mën na ca tàbbi waaye suuf ko dara da ko téewul maanaam suuf ga itam daa ubbiku maanaam lu ca tàbbi day jàll dara du fa taxaw ci ñoom daal ne nag maa ngi leen di yee nag ci mel mbir moo loolu mooy shahid moo tax li tax may wax indi wax ni ne li mu wax ne yuminuuna bi ma unzila ilayk wa ma unzila min qablik yuminuuna bi ma unzila ilayka mooy dañoo gëm li yàlla wàcc ci yow mi alquran lañ gëm lañ gëm ñoom ñoom ñoom ñoom ñi gëm dëgg dëgg faw ñu gëm alquran wa ma unzila min qablika mooy la jiitu alquran ne leen loolu nag xikma bi mooy yàlla li muy aaya bi mooy taxasub wal xikmatu fi dikrihi huna annahyu an taxasubi kama waqaa lil yahudi wan nasaara baat boobu la wax daal daal di ne wërëñ dugg ca biir ci ci ci moy yalla lim leen moy moytuloo foofu moy tansu moy par parlo niko ko ak nasaraan yi defe ken ku ne wax na sa morom neko ci dal non la mujj dénkaane wu suñ tubaab daa ci bir julli si na fajar waya fajar gi waxta waxata ak nit ñi muy fajaru dibéer bi boobu la mujj julli ci rek ca ca ca yor yor ba xam nga la wax sëñ cheikh ko ne ko xol sëñ ade bu fi nekkee bu julli jotee mu jiite mooy sa yaa fee julli eh, tisbaar yi dibéer ji ba ci altine ji itam moo jiite altine ji nag ci la wuy ji borom Cheikh Ahmadou Bamba radiyallaahu anhu wa arda foofu xëy na ñëw ci dem sëñ bi yëpp dañ ci ñëwaat bu soobee yàlla fas na ngeen defaat ci ay émission ndax lu mat a bàyyi xel la ndax sëñ bi ak ruuxi gaa yàlla yëpp ci yéenu dëddu àdduna bokkut ak ñeneen gaa yi ni ñuy dëddu àdduna ak seenug nekkaat fekk saxaat yooyu yëpp dañ ko leeral bu sa la waaye li ma ko wax moom mooy Sëñ Tuubaa li mu jëmmat lu mooy parparloo kooku nag ku ne xam ne noonu tey noonu murid yi loolu rek mooy seen mbir par parloo kenn ku ne def na kër mbir léegi def na ay xaaja xaaj ñii naa waa kër sangam ñii waa kër sangam kër gi itam